bu bugguloo waa léegi. waaw mais waa léegi non non. waa léegi à part yow. voilà waaw kan nga xalaat ci seen camp ne il peut être un fédérateur et un bon porteur euh, d'abord de l'héritage de de de de Macky Sall et un, un un candidat capable de vous faire gagner. d'abord mënuma comme je dis mënuma la réflexion anticipée par rapport parce que demain fera jour par rapport à ce que le président bu waxee ba pare je pense que bu waxee ba pare nañ ci am position mais dama wax ni. xam nga man suñu camp li ma ci tiital mooy gars yi war nañu mere seen bopp bu baax xam nga ndax la mm. parce que Maimouna dañu ànd ak kenn mu tudd Macky Sall mu jël lépp jox leen ko dimbali leen jàppale ci ñu bari am na ñi nga xamante ni li ma lay wax seen tur boo ko doon dégg avant ñuy falu seen tour boo ko déggee tàgge seeni i mbokk yi tàgge boole leen ci nga ñëw tey par le décret d'un homme ci kattanu yàlla nag yàlla ay dogal jaar la ko ci moom mu am lu mu joxe actuellement dans notre camp la nit ñi li ñuy souffrir ñu ci bëri les leaders ñi jàpp ni ay leaders lañu problème bi ñu am xam nga mooy lan ils ont un problème de ne pas s'être occupé du militant gis nga suñu camp ki gën a sonn mooy ki ni man militant de base la ko ko gën a sonn parce que ku ci ne maanaam lañ la jox comme responsabilité mu indi moyen indi influence nga am loo téye ba nga ko téyee ñu ci ëpp ils se sont comportés en roi télé wutuñu woon ay nawle ay surga lañ doon woon le militant de base est fatigué yaa ngi gën a deewati nag boo nee man duma militant kenn militant Macky Sall la ku ci nekk am na koo doon téye pour wut sa téye nu bopp mais li may xam mooy dina que président bu dee day dem beneen niveau la mais bu dul bu dul dem tamit je sais que le choix qu'il fera bu fekkee du dem le choix qu'il fera ce sera un choix qui va être soutenu par l'essentiel des militants. parce que nag xamal naa leen et que tu vas et que toi tu vas soutenir. non yow non non li ma la wax la bugguma dugg ci cadre man comportement ak ban choix laay def. mais li ma la mën a wax mooy dina ko tey les euh, nu mu tuddati je les ai pas dinosaures am na lu ñu doon wax les. les caciques. non pas caciques am na lu ñu doon les kii là. Oh les grosses pontes. non grosses je, je savais revenir les am na lu ñu ko doon tuddee au temps les barons xam nga suñu système bi li tax amul baron mooy ñi nga xam gis nga nit njëriñ lañ koy doyee te xam nga njëriñ man moo ci ëpp. ngay jariñ ki nga xamante ni xalaatoo ci moom dara da ngeen a bokk cause rek j'aimerais bien quand j'entends par exemple gis nga ñun man damay xool par exemple la première dame fonctionnement je donne un exemple ni muy fonctionner nga xamante ni ce qui l'intéresse rek mooy na affaire biy dox j'aimerais bien voir dans notre camp quelqu'un en politique en homme qui soit comme ça malheureusement gaa ñi voilà dañu dañu fooy seen dañu fooy fooy nit ñi bon am nu ñu def maintenant le moment venu euh, comme j'ai dit kenn xamul lu président di di wax